ginnaaw bi nga defee sa signature si mbégte loo yëg. sant bu baax sant yàlla bu baax sant fii fan la. waaw Medina TV. ay Medina TV dama si daal waaw waaw waaw dama si daal bu baax di gërëm waa Medina TV di gërëm Sénégal gëm di ñaan na ñëpp ñaanal maam daam. sa diggante ak Adama Diop bi ngeen taxee ñaar la jàpp nga ne yaa ko dool de. non. parce gis naa nga yëngatu. liggéey naa mu liggéey yan ma yàlla may daam fii. fii nii. waaw est-ce que na yàlla. combat bi loo si xaar. lépp xeex door bëre. wala ñeme woo bëre aadama ji da ngay indi xeex rek. si xaar yàlla na ma yàlla dina jàppale. est-ce que yàlla dina la àndal bi. loolu laa bëgg yàlla na ko yàlla def. bu la yàlla àndalee. yàlla na man.